tey di talaata juróom benni fan ci weeru octobre 2020 ñu naan ko 18 safar niki tey jii Serigne Touba ci la demee woon ca géej ga li nu mel nag tax fii ci dëkk bu sell bi lañuy amalee xibaar yu ñeel màggal gi li ciy gën a fës bokk na ci ñi nga xam ne ñoom ñoo faatu ci waa l'accident loolu nag ëpp na fukk ak juróom ci ay nit yoo xam ne ñàkk nañ seen bakkan bi ñu ñëw fii ci dëkk bu sell bi ngir amal fi li nga xam ne moo nekk ni ki màggal gi leneen loo xam ne nemmeeku nañu ko lii di Covid 19 maanaam mbas mi mu ngi fi teewul nag askan wi nee nañ fi gaañ dëkk bu sell bi la teew bés bi nga xam ne ci la Cheikhul Khadim wax nañ ko santalee boroomam moo tax nag fépp ci àdduna bi la ñu jóge gis ngeen ko noonu ci image yi fu ne ñu daal di ñëw ci xabru yeeg fu ne di daal di siyaar Serigne Mountakha Mbacké moo nekk juróom-ñetteelu xalif général des Mourides moom nag gannaaw ree ju nekk gi nga xam ne moom la ñu gis nitu jàmm la koo xam ne tamit saa su ne day gëstu xam-xam ndax livre boo xam ne génn na jëm ci wàllu diine moom dina ko gëstu dinañ leen xamle ak moom mbokk yi loolu moo nekk ponk yi nga xam ne ñoo gën a fës su ngeen loolu léegi ñu ànd ak yéen daal di koy faram-fàccee. fi kulli sahrin wa fi safar هماني هلا ماهن ما الأبس والسفر salaatu lazi fi kulli sëriñ di leen wax dalee nag jàmm ci dëkku Cheikhul Khadim mu ngi noonu ci yoor yooru màggal gi ni ki tey ci suba niñ jóge fu ne nag di ko santale boroomam ñu koy dooree nag ci xibaar boo xam ne nag xaw naa tiis maanaam fukk ak juróom ak lu ko ëpp jàpp fukk ak juróom-ñaar ci ay nit ñàkk seen bakkan ci wàllu l'accident bi ñuy ñëw nag ci yoon yi mu nekk loo xam ne doy na waar ñu ci bëri nag accident yee ko waral am na ñoo xam ne muy kenn ñàkk na bakkanam ci leneen waa sapeur pompier ñoo xamal li nu mel lu tolloo ko téeméer ak fanweer ak benn ci ay intervention la ñu def lu tolloo ko ñeenti téeméer ak juróom fukk ak juróom ci ay victimes yoo xam ne tamit daan nañ leen sauver ñeenti téeméer ak ñeent fukk ci ay nit yoo xam ne jamono ji tamit daan nañ leen jàppale bu baax a baax mu nekk bilan bu doy waar yaakaar ñuy ñaan li nu mel daal di fii yem leneen ci xibaar bokk na ni ki tey ci bës bi ni ma leen ko waxee ci Touba fees na dellu fépp foo dugg nit ñaa fa naam jamonoy mbas la ñu nekk teewut murit yi ak jullit yi fu ne jóge nañ fa ngir ànd ak sëriñ Touba ci màggal gi nga xam ne moom la ñu woote soo duggee ci biir jumaa ji rawatina bërëbu Serigne Fàllu jullit yaa ngi fay ñëw ànd ak mbégte bu baree bëri dañuy dem ci jumaa ji noonu fekk fa Serigne Saliou Seck ak Ibou Diouf jaajëf Pape Fara ni nga ko waxee noonu la kon tey ñoo ngi fi nii ci ah, barabu Cheikh Mouhamadul Fadal Mbacke ñu gën koo xam ci sëñ Fallou Mbacke gis nga taalibe yi kon bàyyeekoo fu nekk ngir ñëw di amal seen ay ziar fii nii ci jumaa ju ah, mag ji rawatina kon ci barabu sëñ Fallou ndax nag ku nekk xam na sëñ Fallou ak daanaka ni mu mel ci xolu ñi nga xam si ñoo di taalibe yi tax ñu ko fu nekk malgré li nga xam si moo di coronavirus bi ngir ñëw amal seen i xam naa dañuy ànd rek ah, man ak Ibou Diouf dugg ci biir laaj leen ak li nga xam si moo di jamonoy coronavirus bi amal si màggal gi tey di di bisu 18 safar. doon leen sant suñu boroom rek ndax maanaam lépp ak cant la ndax euh, maanaam euh, tawat bi doy na waar doy waar goo xamante ni ku ko ku ko kum dalul rek kum dalul rek xamoo ko waaye suñu boroom musal nañu ci. Euh, ba jëlee nañ jëlee nañu ko fi ci barkeb Serigne Touba Xaalim Rasul di ñaan maanaam suñu boroom jeexal ko tàkk tàkk tàkk tàkk mu jóge fi ba faw ci barkeb borom Touba. waaw sant yàlla. ndax coronavirus dafa am lu amoon jëmmi sëñ Fallou jamonoy sëñ Fallou dafa am feebar bu fi jaaroon balaa coronavirus sëñ Fallou bi Senghor ñëwee ni ko feebar bi dañoo bëggoon ñu ñu arrêté màggal googu ca jamono ca yooyu jamono màggal gi bañ am daf ni ko nañ ko na mel ni daal siburu nañ ko tuddee kon siburu waaye waaye ku fi jóge di nga ñibbi fa nga jóge te doo siburu doo fa fekk buru kon coronavirus bu ñu ko waxee. maanaam du feebar la boo xam du fekkee yàlla indi na ko fi yàlla mi ko fi indi moo ko fiy jëlee ndax balaa la rek. sant yàlla rek sant yàlla ndax ñun euh, taalib moo amul lu dul euh, ndigal ak euh, topp topp ndigal moo ñu moom moo ak bëgg Serigne Touba moo tax. mënuñoo bañ a ñëw ñu màggal si donc euh, yàlla tamit def na ba feebar bi wàññeeku na bu baax sant yàlla loolu tamit sant yàlla bu baax la mais daal euh, sant nañ bu baax daal feebar bi moom yàlla na yàlla na yàlla na ànd màggal gi dem yoonam. dégg nga ko kon euh, Pape Fara nga xam si ñoo di euh, taalibe yi bàyyeekoo fu nekk li ñu wax malgré li nga xam si moo di euh, mbas mi fi am terewul ni dagg nañ seen yitte yëpp ngir ñëw màggal si li nga xam si moo di bésub Serigne Touba Cheikh Ahmad Bamba Khadimu Rasul bi fii nii nag ci barabu Serigne Fallou Mbacke di Cheikh Mouhamadou Fadal Mbacke gis nga mbooloo mi ni nu fi bëree ñëpp nag ngir ziyaare si di ñaanaale tamit li nga xam si moo di mbas mi daal di fiy jógee kon gis nga ko liggéey bu am solo bi nga xam si àndoon nañ def ko ci man ak Abdou Ibou Diouf far euh, Cheikh Mouhamadoul Mountakha Mbacké mu yàgg fi loolu te ànd ak wér waaye tamit di ñaan li nga xam si moo di mbas mi bu màggal gi jeexee màggal gi yóbbaale ko ci barke Serigne Touba Cheikh Ahmad Bamba Khadim Rasoul jaajëf Pa Faral jërëjëf jërëjëf sëñ Saliou Seck am na solo moom la ñu fekki woon noonu ci jumaa ji mu won ñu li nga xam ne moo nekk ferveur bi maanaam nit ñi ñu ñëwee ak yaqin di ñu am kon dégg ngeen ko di leen wax ci ñaareel pàcc bi sens beeg organisation lu nu mel dinañ ci am gan muy Serigne aboo Mbacké di président sous commission presse ak commission culture euh, bu grand màggal bi lu mu gën a yaatoo dinañ ci ànd ak yéen waxtaan ak yéen leneen ci xibaar maa ngi leen ko dem junj mu nekk sëriñ Serigne Mountakha Mbacké juróom-ñetteelu xalif bu sëriñ Touba ku ko seen ree ja ngay njëkk a gis mu nekk nit koo xam ne jàpp nañ ne ku dëggu la te tamit bëgg xam-xam loolu ndax saa su ne da koy gëstu nekk kuy boole dañ ci ànd ak yéen ci portrait lu weesu reegu neex ji nga xam ne moom ngay seen mu nekk nit koo xam ne nitu yàlla dëgg nekk koo xam ne liggéeyal kii di maamam Cheikh Ahmadou Bamba gënal ko lépp lu mu am xalif général des mourides di nit koo xam ne dayoom kenn mënu koo xayma nekk tamit ku dëggu. ñëpp gisee ci kaw ni mel ci kaw ba ko gis sopp ko ko gis bëgg ko noonu muy muy muy lu set wecc du lu leer nañ ci nit ñi noonu mu mel ci biti ni la mel ci biir di nit koo xam ne ku dëggu la. am pas-pas bu wér a wér ci diggante ak boroomam waaye itam nekk koo xam ne it ku fonk Cheikh Ahmad Bamba am ci moom pas bu dëgër ba nga xam ne buy wax ci moom sax day mel ni koo xam ne dafa xaw tàggoo ak sagoom dimension spirituelle bi nekk ci moom ak gëm yàlla gi nekk ci moom ndax xam nga màkk makk xam nga tey la ñu ubbi euh, umra tey la kaat la kaat la màkk ubbi umra ñaata weer lañ tëjoon xoolal suñ Sëriñ Muntaxa ni mu jiitoo jamono ndax ñoom boo ragalee yàlla dëgg dëggal yàlla yàlla dalay xamal li ñëw li nga xam ne rek moom moo ko yittal moo nekk jëfi seexul xaddim daal di wër àdduna naam coronavirus am na naam coronavirus am tax ba événement yu bëri bëri ci wàll dina ñu daal di koy dàq sëriñ Muntaxa Mbàkke fexe ba màggeel gi am te musta woon xalaat tëj ay juma. biir gis na suñ Tuubaa daa wax ne yàlla maa ngi lay ñaan dëkk bii di Tuubaa ak fu ñu may moomale samay jàkk ñaan na nga fa taxawal taxawal mbooloo moo xam ne duñ deñ di taxawal julli juróom dë ban yaa xakim abadan comprendre loolu mu Muntaxa bi mu ko gisee ci la daal di ah wax ne kon muntu jéggi lu mel noonu faaw kon la sëñ Tuubaa bëggoon mu defal ko ko. ku sell ki lu tàyyi saa su ne di gëstu xam-xam li nga xam ne nag moom moo koy firndeel mooy université bu mag bi nga xam ne ci dendu Afrique kenn gisu ko mu koy tabax. mu nii nit ñi dinañ tëdd moom mu def ay jaamu yàlla waaye nag ba tey jii bàyyiwul yër di yër téere yi. boo demee néegam téere bu bees yu bari ngay fay ci biir waxtu wu ne mi ngi jàng looloo tax mu sos université bii nga xam ne euh, mosuñoo gis benn université bu toll noonu ci Afrique moom amu ci. juróom-ñetteelu xalif bu Serigne Touba moom tamit nekk koo xam ne day dalal li nga xam ne moo nekk dëkk bi naka noonu di boole nit ñi. nga gis ne jamono yi euh, Ablaye Wade ak Macky Sall nga gis diggante bi naqari lool ay at at daanaka bañ defaat élection te juba mënut am. nga gis Cheikh Mamadou Mountakha ni mu ko réglé ci benn ngoon benn bëccëg xam ne loolu mooy jàmmi réew mi ña ña bokkut ci tarixa bi mu nekk sax dafa leen a jàppee ne seen i ay njabootam lañ te xamal na boppam ni am réew moom li nga xam ne moo koy defar mooy jàmm li koy defar mooy juboo li koy defar mooy fexe ba nit ñi jàmm nekk ci seen xel ak seen xol. sëriñ Mountakha Mbacké ñu ràññee ko bu baax a baax tamit ci tabaxum jumaa ay musée leneen lu nu mel li mu bëgg daal mooy mbirub Serigne tubaab mu yóbbu ko fépp naka noonu philosophie murit daal di wër àdduna. kooku mooy Cheikh Mountakha Mbacké xalif général des Mourides di ko ñaanal gudd fan ak wér lool Mbacké beneen jafe-jafe mu koy wax muy wàllu ndox li nu mel nag. maître Madické Niang ñëpp ràññee ko ci diwaanu Touba jàpp ne ne ab conseil des ministres décentralisé lañ cee war a am lu weesu sax ndox mi ay usines yoo xam ne dañ koy def ci Touba bu ko defee dëkk yi ñu dendal yëpp daal fi ñëw maître Madické Niang ñu teewlu. li ma wax mooy euh, def nañ fi ay conseil des ministres décentralisé mais dama bëgg un conseil des ministres décentralisé boo xam ni Touba rek ka tax jóg ñu élaborer un programme pour Touba Touba en tant que ville. je ne demande pas Touba en tant que ville religieuse mais Touba dëkk bi nga xam ni mooy ñaareelu dëkk Sénégal si wàllu euh, démographie si wàllu économie ak si wàllu yu bëri yëpp kon war nañu fexe ba Touba man jëm kanam nee naa leen développement industriel il faut mu am Touba ay unité de transformation il faut mu am Touba parce que loolu moo ëppal doole waa Fuuta loolu moo ëppal doole waa Tambacounda loolu moo ëppal doole waa Kaolack waa Ndar ñooy ñëpp dem ba dakaar di wuti lu noo wuti am ko tubaab moo gën yomb si ñoom loolu yëpp nag gouvernement bi war na ko seet te maa ngi tàllal sama loxo président Macky Sall di ko wax ni que man loolu man ak intellectuel murid yu bëri euh, euh, idée boobu ñu ngi koy xalaat te Euh, ñun pare nañu ànd seeg liggéey seeg gouvernement bi parce que Touba li koy mën jëmale kanam mooy liggéey boo xam ni day soqe ko su gouvernement bi ba pare murid yi dugal seen loxo bu leen fàtte ni murid yi kat fi Touba ak si tey ñoo fi àggale Touba kon il faut ñu dugal seen loxo pour que tubaa man jëm kanam. maître Madické Niang moo nekkoon noonu nag di wax ci wàllu ndox meek ak dayuwaayu Touba kii di njiitu réew mi président Macky Sall nag moom génne na ab tweet boo xam ne daan koy def. di ñaanal bu baax a baax jullit yi ñu am màggalu jàmm màggal goo xam ne ak jamono ji nga xam ne dafa tombeek mas naka noonu daal mu ngi ñaan borom bi ak bës bu sell bii nga xam ne lépp loo xam ne Serigne Touba am na ko ci la ci am bu ko defee yàlla daal di fiy jëlee mbas mi ba faaw kon président Macky Sall mooy ñaanal taalibe ak jullit yëpp màggalu jàmm leneen ci xibaar ki nga xam ne nag moo nekk Abdoulaye Daouda Diallo yor wàllu koppar gi fii ci réew mi moom tamit ñëwoon na ci dëkk bu sell bi ñëw nag ngir jox ñaari titre foncier ki nga xam ne moo nekk xalif général des Mourides benn bi nag moo nekk terrain ba nekk fële ca Mbàkke Xewar nga xam ne fas yéene nañ cee amal lii di ab complexe islamique bu mag a mag eh, ci loolu ak bi nga xam ne moo nekk ab jàkka beneen bi nu mel nag loolu ñu ngi koy amal fële ca kër gu mag nekk ca penc ma loolu daal indi loon jox ko kii di xalif général de des mourides dinañ ci dellu si ci sunu yeneen jotaay xibaar ñu ànd ak yéen dem fële nga xam ne moo nekk guy mbind ki fi nekkoon xalif général bi juróom-ñaareel bi moom nag di Serigne Cheikh Sidi Mokhtar Mbacke euh, moom jamono ji këram ga da doon fees dellu waaye gis nañ ne boo fa demee doo fa fekkati ñu bëri li ko waral nag ñoom ñoo ko bëgg ndax mbas mi lépp rek ngir dégg ndigal képp koo xam ne ñëw du bu siyaare daal dem waaye saa su ne soo fa demee njàngum xasida yi ak alxuraan ñu ngi koy yëkkati ca kaw ak kaw ñu dem guy mbind ak reportage biñ ñu leen fa amal برورا خن الخرورا li kulli raay xasida yi booy dugg ci buntu guy mbind fi nga xam ne moom moo nekk kër Serigne Sidi Mokhtar Mbacke moom moo lay dalal taalibe yi fi mu nekk ñu ngay fàttali ko bu baax a baax nit ku tedd kooku nekkoon xalif général des Mourides ak ay dénkaaneem. waxtu ne ñi ne ci biir mbaar mi di wàcc alxuraan di jàng xasaay di ko durus di ñaanal seex Sidi Mokhtar di ñaanal sëñ Moustapha di ñaanal sëñ Mountakha loolu mooy mooy wàccaay wi ndax sëñ Touba dafa wax ni. sama tey ju ne gàccaal na sama démb. waaw ñu ngi fii ñëw di ko siyaar taalibe yi ndax dañoo am cofeel ci Cheikh Sidil Mokhtar ndax ku ni gis na euh, liggéeyam bu rëy bi mu liggéey ci yoon wi liggéey ko ci diina ji waaye liggéey ko ci lislaam bi yëpp nga xamante si ni tey lu bare bare bare ci lislaam bi defar na ko ci fexe na ba ba diina ji ñëpp nekk benn fekk na murid yi xaadir yi tiijaan ñëpp mu fexe ba boole leen ñëpp nekk benn amatul xaaj yi amatul seen ndax ñëpp benn la ndax bëggatumaa dégg la waxoon te comme bëggatumaa dégg jooju moo ko doon wax te boobu Sëñ Tuubaa la woon kon loolu dafay daal di jóge ba faw rek waaye fi nga taxaw tey di wax ak man muy ëttub Cheikh Mouhamadou Lamine baara kii moo daan tawu balaa yi moom Cheikh Mouhamadou Lamine dan daan wax naan faj aajo moo si gën a gaaw lu mu wax boromam mu ni waaw day fal di folle si lu gaaw naa ragal si xarnu bi kooku mooy Serigne Bara ci màggal gi nga xam ne ñu ngi koy waajal kër gi nag da dem fees dell ak nit waaye bi ñu yegsee fekk ñu fa mbooloo mu bëri loolu mel nag ñoom ñoo ko bëgg ndax jàpp nañ ne coronavirus bi moo ko waral. nga gis penc mi tey ni mel ni ay jamono boo fi masaan ñëw doo mën a dugg sax ci biir kër gi waaye li ko waral tey nit ñi ñàkk ñoo bari waaye dafa joxe ndigalul ku ñëw siyaare delluwaat ca kër ga jëfee ndigal li nga xam ni moom la sëriñ bi eh, digle moo tax ngeen ñëw fekk kër gi mel nii loolu it boo gisee mu def ko mooy ab taalibe rek la def boppam moom it jox jël nangu ndigal ci sëriñ bi joxaat ko taalibe yi taalibe nangu loolu moo waral moo. waaye lu mu ci mën a doon rek ñoom taalibe yi ñu ngi waajal bu baax bernde yi ngir gan ya fay ñëw. boo waxee màggal wax bernde boo waxee bernde euh, comme ni ko sëñ Mountakha waxee respecté it mesures barrières yi euh, euh, sàmmonteeg dicté doc digg yi nga xam ne docteur wax nañ ko ñu ngi si bu baax a baax a baax. te guy mën nag di waa kër Serigne Baara. taaliba ya fa nekk nag ñu ngi waajal di def lu ne ngir fexe ba màggal bés bi nga xam ne Cheikhul Khadim ci la demaloon ci géej mbokk yi kon na ma leen ko waxee woon rek sunu gan moom moo nekk Serigne Abo Mbacké di président sous commission presse ak commission culture ci grand màggal gi ñu daal di koy dalal Serigne Abo ñu ngi lay nuyu di la ci bës bu màgg bi ñu bàyyi la nga nuyoog mbokk téléspectateurs yi. asalaamaaleykum wa rahmatullah gannaaw bu ñu sante yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sant Serigne Touba. Pape Fara ñu ngi lay euh, ziare bu baax di ziare waa groupe Futurs Médias yëpp. Mhm. di ko tàmbalee ci le président directeur général Youssou Ndour ci taalibe Serigne Touba gi mu doon ak liggéey bu rafet bi nga xam ne liggéey ngeen ko ci màggal Touba gi. Mhm. yow yaa yor commission sous commission presse euh, ak commission culture balaa ñoo dugg ci waxtaan bi dëgg lan moo waral màggal gi sens bi nga dellu si ci waay. màggal gi moom mooy euh, dañuy santle Serigne Touba sunu borom moo ko santaane woon. te it mooy mbégte murid yi murid yi ñun amuñu dul màggal tubaab mooy suñu bis te ku nekk gis na ne ñi nga xam ne dañuy màggal wala dañuy gàmmu bisu mbégte la ñuy gàmmu waaye sëriñ bi moom bis bi nga xamee ne la fi jóge di dem ci géej gi murid yëpp jaaxle moom bis boobu lay sant yàlla ndax xam na ne ci la ko suñu borom defal lii mu ko defal tey ba màggal gi mel nii ndax boo xoolee démb rek sa yaram day daw man maa ngi fanaan ci sama tool yi fii digganteem ak Touba ci fukki kilomètre ak ñaar la toll waaye la fa sotteeku ci ndox kenn xamul nu mu toll li wër Touba yëpp di am ndox nga ñëw ci biir Touba te genn toq ndox wax wàccu fi mooy wane ne Serigne Touba lépp lum bëgg rek loolu la suñu borom bëgg lépp luñ koy defee moom la suñu borom ànd ba tax na euh, bis bii moom képp koo xam ne murit nga saxool da ciy sedd rawatina nag lii mu tombeel tey jàppoon nañ ne boo ñëwee Touba tey doo fekk kenn waaye ren day màggalu murit yi murit yi nga xam ne ñi ngi Sénégal kenn des ndax ren mooy màggal goo xam ne képp ku ko màggal si mel na ne jiyaat nga ndax buñ ne lii dafa xew ndax ku fa dem lii mën na laa faa dal murid yi jaayante lépp bàyyi li am lépp bàyyi seen alal bàyyi seen lépp ngir ñëw nga xam ne wóor na ma ne tey bu ñu newoon dañuy faatu benn murid di des ñëppay faatu ndax gëm gi nga xam ne moom lañ gën Serigne tubaa ak jëf ji nga xam ne Serigne tubaa jëfal nañu ko te mënuñu koo fay moo tax murid yi tamit jël bis bii tey mu mel nii mu mel sànq maa ngi jógee ci kër ga njaboot gi bari fa lool waaye nag ak ni ma demee ak moo tax bi uh-huh. biñ ma woowee ne ma faaw ngeen ñëw uh-huh. damaa bàyyi njaboot gi taalibe yi ngir ñëw fekk si leen fii uh-huh. waaye waxtu ak genn wàll def naa ko ci diggante bi ngir mën ak si fii loolu waaw ni nga ko waxee rek sëñ bi gis nañ ak contexte bi yaakaar nañ li ñuy wax màggal de défi la kon murit yi wuyu si nañ bu baax a baax suñ ñëwee ci njàngaleem Serigne moom mi nga xam ne wax dëgg yàlla jaamu yàlla moom moo ko may li nu mel bind na bànne fii lu ci mel ni Matlabul Fawzayni nekk yeneen yu mel ci njàngalem Serigne Touba lan lañ ci mën a jàng fi jamono toll ak mbas mi nu mu méttee teewul nit ñi daal di ñëw wuyu si ko. xam nga mooy mooy baat bi ñuy wax ren ji ci màggal gi muy xidma mhm. nga xam ne mooy Serigne Mountakha Serigne Mountakha jamono yi Serigne Modou Moustapha mhm. ba ci seen seen Sidi Maxtaar mi nga xam ne moo fi mujj nekk xalifa ku fi mos a jaar ku ne xidmaal na la nga xam ne tey euh, mooy borom xidma ndax. boo seetloo li nga xam ne defal na ko xalifa yi fi jaar yëpp ba tey jii mu taxawal loo xam ne boo xoolee ci yoonu murit bañ tàmbalee def ba léegi kenn mësta def lu toll noonu ndax sëñ Sidi Maxtaar bi nga xamee ne def na li ñuy wax masaalikul jinaan def fa ñaar fukki milliards ak juróom-ñett dañ ne woon lii jeex na dara dootu amati lu mel nii Seex taxaa ñëw taxawal université boo xam ne nii fanweeri milliards ak juróom-ñett la kon kooku mooy boroom xidma te pareegul te équipement yeeg yeneen yi di ñëw dina doon ay milliards yu bëree bëri yeneen ba bu noppee sax bu université bi noppee li xam ne moom lañ ciy def ba àggale ko ba daloo université boobu ndax loolu mooy bëgg-bëgg murid yi ndax ñun sëriñ bi lu mu bëgg rek loolu lañ bëgg lu mu bëggul rek bëgguñu ko te lépp lim ñu digal ci la ñuy jaar lim ñu tere it ci la ñuy bàyyi moo tax bi mu wootee màggal gi nii tey ak fii mbir yi toll ak li nga wax nii ci njàngaleem Serigne Touba nga xam ne moom Serigne Touba li mu jàngale lépp mooy jaamu yàlla ak liggéey moo tax fépp foo fekk murid yi ci jaamu yàlla rek nga leen di fekk ak liggéey uh-huh. amuñu leneen loo xam ne moom la ñuy def nekk na lu am solo mais yow bokk nga ci ñi nga xam ne ñoo yor waayu taskatu xibaar yi ren organisation bi gis nañ am nañ coppite ak mbas mi nga dellu si ci waaw xam nga donc lu fa am solo ndax ñu ngi daan boo daan xool ci màggal yëpp weesu yëpp man fukki at ak benn ci ñoo ngi woon di liggéey ak Cheikh Mamadou Bachir moom sëñ euh, Abdoul Khader mi nga xam ne moo jiite màggal gi mhm. ci liggéey bii nga xam ne moom lañ ko dénk ak sëñ Abdoulaye Gaynde Fatma mi nga xam ne moo jiite communication ak culture mhm. fukki at ak benn yooyu yëpp dañoo am expérience boo xam ne dañ doon dem ba am ay junniy journaliste daaw ak ñaar téeméer amoon nañ ko mais bi mbas mi ñëwee ngir ñu wàññi ko ñetti téeméer rek lañ agrédité ñu fa lépp loo xam ne jumtuwaay la boo xam ne dina mën a aar journaliste yi mhm. tey lépp lu ñu yóbbu tam wàññiwuñ ko parce que dañ ne lu junni daan bokk su ko ñetti téeméer bokkee defe naa dina gën a yaatu te dina gën a rafet mhm. moo tax tamit loolu lañ ci loolu lañ ci def comme loo xam ne nii lu bees la te boo xoolee jumaa ji ren amul benn plateau boo xam ne wër na ko mhm. te li ko waral tamit mooy du dañ koo tere ndax biir jumaa ji lañ tere woon waaye bitti bi terewuñ ne yor nañ ay groupe télé euh, ay ne dañoo am ay nit ñoo xam dañ leen mhm. te tey leen jëlee teg leen ci mbedd mi mhm. faw nit ñi seetaan leen mhm. waaye ñoom seen ay conscience ñoom tam ñoo xalaat ne ñoom waruñoo def loolu moo tax tey boo ci mbedd mi daanaka gisoo benn plateau boo xam ne nekk na ci mbedd mi pour nit yi di ñu baal ñu xanaa ndodd gi wàcc rek ñu wéyal ba léegi rek daal di daaneel at mi ren tamit cérémonie du am loolu tamit nekk na loo xam ne lu nay waar kon euh, mu ngi noonu rek gis ngeen señ Abo moom la ñu am tey ni ki gan ci invité bi nga xam ne moom moo nekk journal 13h bi euh, ci noonu nag moom mooy yor euh, commission bu wàllu euh, presse naka noonu bokk ci commission culture moom tamit bu grand màggal kon ci loolu rek day nekk lu am solo peut-être xëy na jugi ci en direct nondu baa ngi noonu nag ñu koy amal ci jumaay tu Touba ñu teewlu ko xanaa di remercier bu baax a baax rek sëñ Abo di. jaajëfal bu mét dinañ dellusiwaat ci moom bu baax a baax daal di ànd ak moom ci yeneen xibaar mbokk yi di leen jaajëfal di jaajëfal ñi jàpp ci mbir mi ba mu yemb maam Biram Diouf ci coordination bi ak tonton Mak ak Nisando ak ñoom Pape Sylla ak ñëpp ñoom Ibrahima Cissé ak ñoom paate ja kon di leen wax rek màggalum jàmm ak salaam incha allah ngoon ngeen dellu si ak sunu xibaar yi ànd ceeg soxna Fati Dieng fii ci dëkk bu sell bi ak Serif Dia ci kàllaamay Tuuba